gaamu vite fait bi ñoo leen ni may seen émission xalaas J'ai pris un taxi jaune noir des Almadies rond-point en face euh, Banque B6 pour Amitié 1. Derrière champ vers 20h euh, bàyyi taxi bi ordinateur Taxi hmm, taximan bi boudé mu ngi koy indi à la radio, indi ko RFM néna une forte récompense mu ngi koy xaar ordinateur la bo xamni ne yep yep yep ci la donc sama yaay ba envoyé ben

xam nga li ma Yacine Pouy def euh, Matar metti na ma xeetu metti boo xam ni passe partout. waaw kii magum jëm mu toll ni man punkal mu toll ni man responsable. waaw ak enfant. léegi marié avec enfant. objection objection a tallal wax ci moom jeeg wala. non non du yee wax wax dama ko mën a yeggale fii. Ah, mais dinaa wax nit ñi euh, ñi xam Yacine Pouy ak ay mbokkam ak yaayam mi nga xam ni def ñuy déglu mu xam ni Yacine Pouy tey tooñ na ma. waaw. sama yaay sama xarit Yacine Pouy tey def na ma lu ma metti lu wax ah non munu ma ko wax mais li ma wax metti na ma tim punkal mu déggoo may la marié ak enfant lu Yacine wax abaa kii tiim ma ba pare xale yi bañuñu ma nga tiim ma ma man laaj ma li ma euh, ñu ngi sant laaju dafa am waaw non daf ne daf ne su ko leeroon ni oh eh, boo yéggalee lii <laughs> Eh. Ah, yàlla ba xalaas day xam naa dinañ ma fi yóbbu rek. lii tax ñu bari di def li ñuy def lii lii rek la. lii rek a tax yu bari di xew ci réew mi. Oh. yu bari. jaajëf euh, kontaan ci ci ci waa kay waa kay sama yaay Oumy Ba ñu ngi lay euh, kontaanee bu baax a baax a baax a baax ngay nuyu sët ba xam nga moom day topp action ba mu jeex. waaw keroog bi ñu rey Mohamed. waaw sama yaay keroog. aalu na xeetu aalu yoo xam ni. oh yaay Oumy Ba maa ngi lay euh, kontaane bu baax Oumy Ndiaye ah madame baax ñu ngi lay euh, kontaane bu baax a baax a baax sama yaay ji léegi euh, partenaires yi bokk na ci Optic Vision mhm. plus Sénégal ñu ngi leen di kontaane wax waxaat du bari wax mhm. leerali wax rek la la ñu def ci màggal gi def ko ci promotion ouverture bi école yi loolu fii la fekk ñëpp tarkal la yàlla na seen jàmm yàgg ci kanam ma ñëw xuus ci gën cee yaatal ba mu gën a yaatu waaye wax naa ni portable yi génn bees lëmbi réew mi ku ne di ko waxtaane mhm. ñëpp xam nañ ni mi woon la gën a yomb gën a baax gën a gën euh, bu ñuy TikTok moo ci gën snap bi sëñ bi nee na nañu wàññi filtre yi nga xam ne def ñuy yóbbu ñuy nduru mm. loo xam ne nekkuñu ñu ko tarkal dañu ci bàyyi xel te mi gi def ñuy dimbali ci yooyu bu baax batterie bi moo gën a wow beneen bu dul moom image ma gën a leer bu photo bu filmé euh, boo ci dugalee Instagram yaakaar naa ni moom moo gën mi yoon da nga koy chargé teg euh, yow yaay dem ba sentir ne war ngaa chargé waat wala gëj ngaa chargé waat nga chargé waaye amul obligation pour nga chargé waat yaakaar naa ni ànd ceeg waa kër Serigne Touba Fall boo duggee ci kër bëgg faa wala nga dugg ci kër nekk fa à l'aise xetu kër gi moo neex waaye rey na mbóoti mm. euh, rey na yooyu lépp rek loo xam ni insecticide la wala eh, kii in lan la yow kii insecte lépp rek loo xam ni insecte la te te nekk ci kër gi euh, daf lay taqaleek moom waaye indi ñu saabu bi nga xam ni moo gën suñu yaram mm. day protéger suñu ay peau euh, maanaam ubbi say poor lépp di leer sa yaram di nayi ngay nayi nayi bàyyi ko xet bu neex moom itamit yaakaar naa ni mooy saabu boobu nga xam ni mooy king waa kër Serigne Touba Fall ñooñu ko indil la ñu ma mayoon ci vite fait maanaam gaamu vite fait bañ ma mayoon. ñoom motti nag ñoom ñëpp a ngi may déglu. man Mottin loolu moo nuyu. jeex na Mottin bàyyi na waaw te gis nga euh, Mottin day nit koo xam ni. weer wi bu daan demee nii mu demee euh, nga woo Mottin benn yoon du ñaar. na Mottin xam ni tey la fin. du may wax ak Sëriñ Tuubaa fa la fin. waaw bàyyi naa na xam ni tey la fin. te Mottin da daan jékki-jékki rek ba ba ba ba yàgg am nu mu def. waxuma sax kii faal man mootin rek laa wax. mootin lañu wax. yàlla na seen jàmm yàgg euh, suñu partenaires yi nga xam ne ñoo ñu gunge. balaa mhm. ñuy dem gërëmal ma Sénégalais yi. Mhm. Euh, parce que démb. Mhm. élément bi ñu fi jàllale woon ci ndaw soosu war noonu lor. te mu doon wër hôpital yi nanguwuñ ko jël. xam nga après yaa ma doon laaj. balaa ñu fiy jugee waaw. bari na ay kilifa yu doon laajte numéro voilà mais ñu si bari nag joxe wuñ seen tuuf. donc ñu bëri message na ma dima laaj seen numéro dima laaj numéro ndaw si mais joxe wuñ seen Mm. numéro de téléphone bu commencé 637. 638 639. 640 644. soxlawul nga koy laaj turam. 749 kilifa la waaw. 749 kilifa la. ak 150. soxlawul nga koy laaj. ak 150. ah ak 634. ak bàyyi ci xel. ak 740 ak 634. ak 740. <laughs> ayca en tout cas euh, yaakaar naa ni day hmm. dimbali. léegi fan bu baax. waaw léegi nag ñoo comme ñooñu joxewuñu seen tur aussi. Hmm. moo mënuñu leen tudd. Hmm. mais li l'immédiat ki ñu wax euh, madame Gakou. mu ngi nekk euh, ministère de la santé. moo nekk directrice cabinet bu madame la ministre. Marie Khemesse. woo na ma démb. ba laaj ma numéro ndaw si. moment bi may woowaat ndaw si pour di ko laaj ndax woo nañ ko mu ni ma maa ngi macha allah macha allah waaw donc nag euh, dinañ ko topp ba xool fan la situation. bëgg nañ lii ci autorité yi de waaw ah. franchement madame Gakou mu ne ko disponible. di ah. saa si la ma woo. Euh, woo directeur tamit Assane Gueye. Mhm. franchement réagir ñu dem jëli ndaw si. maintenant nag ñuy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla taxaw ba mu génn ci li ci jàmm. mucc ci jàmmoo doom yëpp. moo tax classe gi lu ñu ci wax rek nay jàmm. muy leer xalaas gi àdduna koy déglu. kilifa yéeg ñëpp koy déglu donc lu ñu ci wax rek euh, nay jàmm te nit ñi nu xam ni li ëpp ci xalaas gi rek mooy dañoo bëgg luy defar. muy defar effectivement am na solo. xalaas bi njëkk lu mu wax tamit moom Serigne Mor Serigne Mor Mbodj aussi. Mhm. xam naa fan nii yaa ngi ko gis ci internet bi benn euh, Sénégal la bu nekkoon Tunisie di fa jàng. Mhm. def na fa 6 ans ba waroon ñibbisi. maintenant bi muy ñëw na ba wax waa k ni mi ngi ñëw. Mhm. ci la seen waa kër gëj xam li xew. nekkee ci yoon bi bu ñëw na ba aéroport. yegg si na. Tunis. dem na ba aéroport. waaw ba war a ñëw Sénégal. woote seen waa kër. ci lañ gëj a xam li xew. ñu leen maa ngi ñëw. léegi nag. Mhm. ñoom ñu dem aéroport fii di ko xool ba ba avion bi ñëw ba nit ñi génn ba jeex gisuñu ko ñu wootewaat foofu ambas ambassade ba gars yi dem di vérifier ñu ne leen booy bi ambarke na loolu lañ leen njëkk a wax jékki-jékki ñëwaat leen booy bi dafa agressé benn policier jàpp nañ ko ñu ngi ci kaso ba. Hmm? loolu lañ ci am. déggatuñu booy bi gisatuñu booy bi. nañ déglu kii frère am déglu ko. Warraqa Tunisie la doon jànge depuis 2016 mi ngi woon foofu léegi jeudi passé nii la 15 septembre bi la waroon ñibbisi waroon jël vol boor 14 heures ñu toog bu benn instant 14 heures 15 heures mais vol dagg na daawoon retard mais ñun dañoo jékki-jékki rek am ku ñu woo nañu non seen doq bi daa am am problème foofu aéroport mais expliqué wu ñu exactement problème la am léegi après mun nañu léegi foo ngeen jéem a dugg en contact ak ambassade wala ngeen jéem a intervenir kenn affaire nu mu demee ne noonu lañ def lijjanti dugg si mboq seen mboq ba kenn kon yónni gars jot nañ ambassade bi après ñu yónni foofu kooku dem ba aéroport bi waa aéroport bi ne ah gisuñu ko xamuñu fu ne ñoom yaakaaruñu sax ne mi ngi fi léegi man ma dem ba aéroport jour boobu la quinze parce que def naa fa deux heures trois heures temps di xaar ba vol bi gars yi atterrir lépp ba lépp sotti mais sama raq nekk woon si nekk woon si avion bi ñëwul woon léegi ma ñibbi si lendemain bi waat yëpp gars yi dem ma sama benn xaritu raq bi foofu tamit man ma wax ko moom mu contacté étudiants yi ne foofu gars yi delluwaat foofu ñaar yoon policiers yi nañu noonu nekkuñu fi ñoom xamuñu ci luñ ne ba démb ci ngoon ba gars yi delluwaatee gars yi na lañ léegi si na jël na ay avion ñibbi na boo leen demee xaar aéroport ngeen ko gis léegi am ku dem aéroport ba ne foofu gisuñu fa kenn kenn new foon si noonu depuis boobu benn jour deux jours ba tey lañ delluwaat aéroport kuy liggéey ambassade moo dem aéroport foofu la comme gars yi doo ko nangoo nekkoon nag mi ngi nii mi ngi ñu jàpp mais daa am problème fii parce que dégg naa nee nañ daa policier bu mu agressé foofu loolu la ñu wax te yàlla xam na ki ñi ko xam yëpp xam nañ ne loolu lañ tëwu sax moom du xool nit sax noonu la affaire demee ko boobu nag léegi ñu ngi dégg léegi gars yi instant bi léegi peut talaata lañ naan dañ koy jugé léegi comme la war a daje juge bi depuis boobu nag ñu ngi déglu noonu lañ ci xam dégg nga Abba. Mm. yii nag bu amee nag autorité yi dañoo dañoo war a jóg. c'est-à-dire que xam nga doomu Sénégal bu nekk bitim réew Abba yaakaaru fa kenn ku dul soit consul bi wala ambassade bi. waaw dëgg la ci kaw ñoom aussi bu ñu demee bitim réew nañu dem ba ci consul ba ñu présenté wu ñu xam ne seen doomi réew mi ngi ci dëkk bi. Mm-hmm. bu ci taxaw waree am tamit ngir yàlla consul wala ambassadeur nañuy taxawu neew ma ne defuñu ko nag. mais nañuy gën a farlu. Mm-hmm. am na solo de. parce que bi ci topp tamit ci loo ci loolu la jëm. bi ci topp tamit damaa génn réew mi carrément. te immigré nga. waaw tey. <laughs> tey taxawaayu immigré nga taxawee. nii laa la ko waxee. waaye nañ leen di bàyyi xel rek. waaw tey doomi réew mi lañ tey wax dëgg yàlla ay xale la ñu am jom. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw parce que ki ki am na ko fi njëkkoon jàll tamit amoon problème Tunis yaa ngi rappelé te mu nemoon aéroport bi ñu téye fa mu fi jàllee ñu fexe ba réagir ba dimbali ko moom tamit mu mën a mu mën dellu si. macha allah waaw. kii Abba Soda Ndiaye la tudd yaayam mooy wax nii Soda Ndiaye dañ koy yóbboon Arabie Saoudite mhm. depuis 2013 mu fay liggéey muy déggante yaayam ba 2014 mhm. mu woo yaay téléphone benn jour ne ko sama patron bu góor dafa gaañu da wax ji mhm. ñu dawal tuuti mu koy woo ci numéro chauffeur bi nga xam ne moo ne ci kër gi ba bi muy mujjee wax ak yaay daf ni ko comme patron bu góor bi gaañu na léegi soxnaa moom bu des ak doomam. Mhm. soxna patron bi feebar. doom dina ko sama papa gaañu na sama yaay mi ngi nii feebar bis bu dee naa rey. Mhm. jour boobu la ko yaay ji mu ciy dégg 2014 ba tey 2022 moom fu ne dugg na fa fu ne dugg na fa am na ku ko booleel ku ñuy wax. yaakaar naa Pa Maysa nee na bi ñu ko wooy def ni ko dañ ne sa doom Soda Ndiaye dafa daw indi nañu passeport am ak carte dafa daw dafa daw ñu déglu ko pare ñu déglu man la soxna Fatou Diallo dëkk Pout quartier Jubo doom ji soo danjaay la tudd mu fi jógee 2013 le 22 avril 2013 la fi jóge maa ko gëj a dégg 2014 daanaka la ay le 25 juillet yooyu laa ko mujjee dégg 2014 boobu léegi dégguma ci moom dara benn information dëgg la mus na ma fee yaay mu ne ma sama patron bi dafa gaañu dëgg la patron bu góor bi dafa gaañu woon ba man woote naa téléphone mu jox mam patron bu jigéen bi may wax mu di ko làkk di ko wax sama yaay mu lay jàng bi ñu dawee ay fan ay weer ci la ma woone ma yaay sama patron bu jigéen bi day dem faju ji ndax bu borom këram gaañoo ba léegi dafa feebar léegi day dem faju ji waa ci day dem faju ji boobu mu ni ma numéro bu ma lay woowee du ma ko am ndax numéro am laa la daan woowee pour boo ma gëjee dégg mais chauffeur bi ci kër gi moo may abal portable ci laa lay woo bi ma ci woowee ne ma numéro bii mooy numéro chauffeur bi waaye am na jour mu woo ma ne ma yaay man de tey jii patron bu jigéen bi dem na waaye doomam bu jigéen jóge jidda ñëw fi dama sonal ba ni ma sama papa gañu na waye sama yaay ngi ni feebar bu dee dama lay ray kéro wallahi azim dama rey ne ko loolu mënu ko def waxul dëgg loolu moom rey yàlla yàlla moo ko yor day wax rek yow daal ma ngi lay ñaanal yalla na yàlla jàppale la rek ba nga jéxal la jàmm ñibbi ci sa patron bu jigen bi ci nga préparer bu ko ñu wax ak mom ñibbi fi jëlé won nak abu diallo la tudd bi mu demee ba am six mois Abu Diallo woo na ma si benn yoon ne ma ah Soda gëj nga koo dégg ma ne ko gëj naa dégg kay parce que nee na ma patron bu jigéen bi dafa tukki te numéro am la ko daan woowee waaye de woow na ma ci benn yoon ci numéro chauffeur bi waaye boobu ba léegi woo waa mu ne ma ah ma ne ko waaw ma keroog bu ma mujjee woon nag mu naan ma doomu meer bi da ko commencé sonal suur boobu laa gëjee dégg sama Soda ba jonni yàlla tey ñu dema dem ba mu am a guddi sama portable am message bi mu amee message ma euh, bi mu sonee xam naa daal sonné ci guddi yëguma bi ma yewoo ma gis appel ma daal ci woote bi ma wootee day décroché mais du jël tombeeg sama rakk bu góor bi ànd ak man ñu dem kër Abu jàll sama rakk bi ne ko di ma wax foo sama jarbaat bi ne baa ma teg la yoon mu jox ñu numéro Pa Ndiassé ñu woo Pa Ndiassé expliqué ko Pa Ndiassé ne voilà Soda Ndiaye patron mi nee na dafa daw indil na ma passeport am léegi indi na ma passeport am ak dentité nee na ma sooda dafa daw sama rakk ju góor ji ne ko ah sëñ bi léegi nag yow Soda dafa daw indil nañ la passeport am noo ñuy dimbalee ba ñu jot ci sooda moomu daw ak lu ko tax a daw ak fu mu aw mu ni loolu ñun mënuñu ci dara parce que ku xës ba daw yow sa patron indi say pièces ñun mu am ñun mënuñu ci dara ba mu waxee loolu ah sama àdduna yëpp ma santaat yàlla booboog léegi tooguma am na fuñ ma yebaloon ci nguur gi ma dem fa mais awma ci benn solution foo xam ne nee nañu kii yu recherche la biir dakaar ma dem fa ñooñu laaj ma ay information ma wax leen ñu ne daa am xale yu réeroon ñooñu ñoo ko feeñal mais ba léegi daal mënuma am benn information. xalaas. dégg nga de lii daal la am ci Soda 2014 ba tey nag abaa nag autorité yi nekk euh, Arabie Saoudite. parce que suba dinañ ñëwaat ak beneen beneen élément boo xam ne tamit ay ay gars yu nekk foofu la ay chauffeur rek ak benn waaye bu fa def benn choc bu metti ba nekk soin intensif. fu mu nekk mi ngi Arabie ba léegi. moom aussi naar fu mu doon dañ ko nar a génne ci hôpital ay ay raccord lañ ko branché it ay mbokkam ñu ngi jéem a dugal bopp dugal tànk pour mu ñëw mais kaaw Soda bi abaa dafa am ñu bëri ñu ci war a jàng gis nga maire bi moo wax rek mais ñu mel ni Soda te seen mbokk gisatuñ leen du jeex du xaaj. xamul tax. Mhm. bu ñuy jëlee fii nit ñi di leen yóbbu surtout jigéen ñi di leen yóbbu ay Arabie Saoudite wala ay Liban wala ci dëkku naar yi dañ leen présenté ay contrat contrat yoo xamante ni en arabe lañ koy bindee du leen wax effectivement la moo nekk ci contrat bi mais gis nga d'habitude courtier yooyu noonu encaissé nañu yow boo demee la nga war a liggéey par exemple contra bu dee deux ans la ñu war laa fay cent mille francs par mois exemple année bi war a nekk un million deux cent ñom encaissé nañu 2 millions 400 dagal la ci billet nga dem bo demé esclave ngay nek bo demé sa passeport li ñëk njëkk nangu téye. dañ la jaay jam dañ ba ma ngok dañ la jaay té bëri na fi ay couture yo xam ñi nga ngi Dakar gi taxawalu sank nañ ay doomu jàmbur bu yak ñi fi taxawal bo demé do mën dem ci ambassade ba parce que bo nee ci aéroport ki nga xam ne moom ngay liggéeyal mo lay jël ci confisquer sa passeport kër gi bu fa duggé do to gën mbaam ngay doon mbaam ay sénégalais ñoo lay jaay nag. te xamoo euh, seen da xamul seen programme réew. Ah. ñoom naka lañ ko nan ñoom ci yan loi la ñu nekk ñu jël doomi réew mi yóbbu sa dëkk xamoo ci lu ñu nekk sa waa kër xamul ci lu ñu nekk. Hmm. nga ne ci benn réew moo xam ni yow nit du la gis doo gis ku ñuul la ngay liggéey sax ci biir. kër gi am na yoo mën a wax ak yoo xam ne peut-être mënoo koo wax mais mhm. chaque fois nit dina fa dëkk wut fu mu dem taxaw al ko abal mu woote wala wax problème yi mu fa nekkee te terewul bu subaa am na keneen koo xam dañ koy yóbbu mu war a dem te mu ngi déglu ñoom abaa toog naa fii sama benn xarit bon ndax mu ngi may dégg wala dégg du ma wóor ma ndax gën naa ko gis sama connecté téléphone am dafa dafa kii léegi mu woo ma fi ne ma damay dem Maroc mhm. daa am ku ma yóbbu ma dem liggéeyi Maroc mhm. toog naa parce que six mois déggu ko ba septième mois mu woo parce que dama ni ko woon Maroc amatul liguey mhm. bi mu demee septième mois dafa ma woné ma passe yaay nga ma fi ma nek ni kër gi ma nek 1 mois ni gisuma jant genre prison la nek prison liguey force jour bi ñuy wax lol 2 jours 3 jours après laa jékki ji gisatuma amatuma ci moom benn contact. c'est grave de. ben contact. c'est vrai que ni nit ku nek ci ñun xam nga li nga xam ni moom ngay dundu sa kër et que da nga bëgg dem euh, ci yenen situation ba mën ci dimbali sa wa kër ak yoy mais fan ngay dem.

nga toog fii. kooku la ku ku dugg. sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp. alors que 77 157